وحدود كلي أبدا بالود وتأمني أنت للمكد وحدود كلي أبدا بالود وتأمني أنت للمكد asalaamaaleykum mbokk talaata ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru maamu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi dëppoo ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier ci atum ñaari junni ak ñaar ak ñaar ñaar fukki fan ñaar bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci talaata ji rafet na li ñu ci terat rek wattandiku moom talaata mooy ko ca watu wala ko ca daloo wala ko ca ñaw ñaanuk bis bi yow yàlla yàlla na nga ma gindi te jubal ma allahumma hdini wa saddidni allahumma inni asaluka alhuda wa sidaat xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn ci yéen ngëm yàllaam du mat lu dul ne dama ko gënal ay waajuram ak doomam ak mboolem nit ñépp xadis bi dëppoo nañu ci qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yuminu axadukum xata akuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi wannaasi ajmain muttafaqun alayh salaamaka bi xayri wudi liman ma